assalamualaikum warahmatullahi rahmatulah taala wa barakaatuhu ngi leen ziar ñepp rawtu na suñu bokk internet yi satan fi ci ASG production tay nak ñu ñew génn ci naafila bés bi. juróomeelu guddi ci weeru koor kep ku ci julli ñent rakka rakka bu ci ne nga tari fatiha alam nasrah ben yoon l'ikhlas ñet yoon di nga am yoolu ku aji màkka témer yoon sa borom dina la musal ci ñak te dina la yok ci xéewal bu baax ak yeneen yi nga leen ASG production moo leen a ñaanal kooru jàmm ak salaam